du Père et du La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. frères et sœurs, Saint-Étienne de Njanda, à la joie de vous accueillir tous, car ce jour se veut unique et inoubliable du fait que l'attente fut très très longue pour en arriver là. fait notre communauté aujourd'hui est dans une double action de grâce. Comme elle avait rendu visite à sa cousine Élisabeth, la Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, est venue jusqu'à nous afin d'être avec nous. pendant trois semaines. Elle vient nous annoncer le mystère du salut par lequel Dieu visite et rachète son peuple. C'est pour cela que nous voulons laisser exploser notre joie et reconnaissance en nous appropriant les paroles de Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? À vrai dire, notre cœur exulte en Dieu notre Sauveur, car il s'est penché sur notre quasi-paroisse en choisissant son humble serviteur, Abbé Michel Colifay, en lui accordant le don merveilleux du sacerdoce. À vrai dire, il nous a fallu 120 ans pour que Dieu nous donne notre premier prêtre. Alors comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il nous a fait Comment lui dire le merci de notre cœur que de le contempler en murmurant toute notre gratitude afin d'être don à son service où la charité nous entraînera. Que Dieu, le maître de nos vies, et de ce jour gravé dans nos cœurs, nous donne de goûter à son bonheur en célébrant les mystères de la mort et résurrection de son Fils, Jésus-Christ, dans l'amour, la fraternité, la communion, la paix et la joie. Sainte célébration et bonne fête à tous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, Confessons nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par condition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs. de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés nous conduise à la vie éternelle. comme prêtre de ton alliance avec l'humanité pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire, accorde au prêtre qu'il s'est choisi comme instrument vivant de ce service de travailler vraiment à la construction de son corps. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. soit avec vous. disait à ses disciples, Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour Sa parole a retentit. jour de Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Oui, jour de fête aujourd'hui, car c'est la fête du sacerdoce. Jour de joie, car c'est la joie pour tout le peuple de Dieu. C'est la joie pour toute l'Église. C'est la joie, enfin, particulièrement pour le village de Yanda qui après son premier élu, son premier prêtre, l'abbé Michel Polifaï. Chers frères et sœurs, ici présents, vous venus magnifier en ce jour Qu'êtes-vous venus voir Un prêtre Vous en avez déjà vu certainement encore et encore. Une messe d'action de grâce la plupart, pour ne pas dire pour tous, vous l'avez une fois assisté ou même plusieurs fois. Alors qu'est-ce qui suscite aujourd'hui autant d'enthousiasme à chaque fois qu'est organisée une messe d'action de grâce d'un nouveau prêtre Qu'est-ce qui suscite autant d'enthousiasme À dire, bien que le sacerdoce ministériel soit commun à tous les prêtres, comme étant le même sacerdoce du Christ et de l'Église. Faudrait-il s'émerveiller du sublime parcours ou de l'histoire vocationnelle de chaque prêtre dans son originalité Vous le savez, chaque prêtre a son histoire vocationnelle qui lui est propre. Alors l'histoire de l'abbé Michel Polyfaille avec son Seigneur, il nous faut aujourd'hui la raconter. Mais avant cela, permettez-moi de reconnaître que je pourrais en être indigne. Et c'est pourquoi c'est un honneur aujourd'hui que tu me fais, toi grand frère, en même temps petit frère, de pouvoir prêcher à ta messe d'action de grâce. un grand frère, parce que Michel est bien plus âgé que moi, n'est-ce pas Vous le voyez, n'est-ce pas Un petit frère, parce que je son ancien dans le sacerdoce, en tant que prêtre de Joal. Un capital d'expérience, de vie j'en ai pas encore, parce que je n'ai que un an de sacerdoce. Alors d'où vient cette confiance à mon égard Je le saluerai, mon frère, dans l'intimité et la proximité que nous avons vécue au cours de la formation au séminaire. Cette proximité pour toi peut parlerait mieux de toi que l'expérience de la voix dominée dans le sacerdoce, je le pense. Tu me le disais au séminaire, C'est toi qui vas prêcher à ma messe de grâce. Et aujourd'hui, tu as tenu parole. Merci pour cette confiance. Puisque le sacerdoce que nous avons revêtu est pour l'éternité et se dit chaque jour dans l'éternité, sache que mon expérience de vie sacerdotale d'une journée pourrait servir à jamais dans ton sacerdoce. Mon expérience sacerdotale d'une journée pourrait servir euh, à jamais dans ton sacerdoce. Et je crois que tu l'as compris. À présent, chers frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du prophète Amos, pourrait nous aider à comprendre la vie et la mission assignée à l'abbé Michel Polifaille. Comme le prophète de Yahvé, Amos était venu de nulle part, n'ayant ni identité de prophète, ni fonction de prophète, si ce n'est qu'il était berger et cultivateur. Toi aussi, Michel Poli, tu es venu de nulle part, Tu n'es même pas né chrétien. Personne n'est né chrétien, parce que comme dit Tertullien, on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Mais je voudrais dire que tu étais musulman et fils de musulman. Et tu étais aussi berger et cultivateur. Comme le prophète qui annonçait des prophéties de malheur et qui a été expulsé par un du territoire Toi aussi, tu as connu l'épreuve de l'exclusion du renvoi au petit séminaire, alors que tu as été peut-être rejeté par ta communauté musulmane après ton baptême. Vois alors aujourd'hui, tu le sais, tu le vois, ton être de prêtre, tu ne le nulle part ailleurs, si ce n'est de Dieu, en son Fils Jésus-Christ, qui l'a pris de loin pour que tu sois le guide de son troupeau yow Abbé Michel ni ki yonent ba Amos bul te bul ragal dara sa panum nabe tey du ci coobal nit ñi mbiru yàlla lu tegu la lu dëggu la lu wóor la lu foor la te itam lu neex la ci xol moo tax tey foog ma wëyal la foog ma wëyal la wëy nga xamante ne surprise la woon foog ma wëy ndaxte kii lee sàmmkat la abe Michel o kay naaka refu foog i ngimanin nen kay naak foog i ngim no ta waago fel la courage va m'accompagner avec aussi tout le monde on va se Michel Dulé mbokk yi fi teew mbokk yi fi teew ni ma ko waxee Ladoum moo tax mbetteel amatu fi jom mi amatu fi coppite amal na sax mën na am coppite mën na am te lu wóor la ndaxte Abbé Michel du doxati ci ndigalu kenn sudul ci ndigalu boromam Yeesu Krista niki Amos ay kàddoom su tàngee su waxam neexul ndax dëgg gi bu mu leen bett bu mu tax ngeen jànni ko ndaxte boromam lay surgawu Michel du waxati kese ndax bànneexu nit waaye li yàlla santaane lay faral di jottali ndaxte léegi moomelu yàlla la yow Michel su fekkente ne sax sokkeekuwoo ci yoon bi wala ñu bari sax jàmbare nañ la ci sa yoon mi le loolu bu mu tax ba nga kersawu wala nga xat ci sa xol doonal ki yéesu bëgg nga doon ndaxte ni ko ñaareelu njàngat ba waxee ci ay kàddu mu Musella mi li ñu jàppee dof ci duniya loolu la yàlla tànn ndax réeral ñi seen bopp fees li tax yàlla na fi ñukk ñi nga xamante ne juddoo nañ ci yoonu kerceen mu wëlbëtu wëlbëtiku jël tànneefam ci ab musulman loolu moom rek a ko xam te loolu mbokk yi njàngat la li nga xamante ne nag mënuñu koo jéggi tey mooy que ni yow Abbé Michel da nga doon ki jiitu file ci njànd ci mbootaayu ya labbe ndaxte yow yaay labbe bi jiitu fii ci njànd yàlla def itam nga doon mag ci ay at seen paroisse bi itam nekk ci ay tout tànk maanaam fondation kon nag foog naa ne sas bi le diis na sas bi diis na ci Abbé Michel waaye yàlla na oyof toll ci kawam yàlla na sas bi oyof toll ci kawam ma bëggoon ni ki sa turandoo malaaka Michel bi jiitee malaaka yi ci asamaan doon kii xeex guddeeg bëccëg ci kaw asamaan na nga doon sàmmkat ak alkaati ci sa paroisse bile mais itam fi nga xamante ne foofu lañ lay yóbbu ni ki Étienne mu sell mi doonal martyr doonal kuy nangoo joxe bakkanam ndax euh, jur gi mën a feeñ te foog naa ne loolu mooy sa devise loolu ngay bàkkoo maanaam sàmmkat bu mag bi sàmmkat bu baax bi dafay joxe bakkanam ngir ay juram le bon pasteur doon sa vie pour ses brebis. Abbé Michel, ta devise tout le monde peut l'admettre et la comprendre. Michel Colli et le troupeau, c'est une longue histoire. Michel Colli et le troupeau, c'est une histoire d'amour. soo leen xamul grand séminaire si fi nekk ak l'abbé xam nañu ci dara ndaxte l'abbé Michel doon grand séminaire da doon andi nag bu l'abbé yi nga xamante ne ñu doon formé sax dañ ci jot donc l'histoire de Michel avec le troupeau c'est une histoire d'amour que nous pouvons aussi nous aussi comprendre wo abbé michel koli o kaynak tigire fof to we'anonga fof a mbagano seede no kaynakof teno ɗaxta soxla adna o fop buga anda waaga ngaynaak hoten tahu um bugu taref lalgan lam ke bugu ma oco a paax nda kam bug te ref lalgan voilà waga gari garedi nak anditele hara anditel eh? o lok o xëy merci um layange sa anda kete tegitna yaam Yeesu ka lay paal ke mi andaxam to andaam paalis itam to o loko lene xana waago tax bo waago ɗoxa o siiro le to o leŋ no den moke kene lalgalo dami voilà kene xaroye o ɓaak i ndax o waag itam o ge'ra fo siiro le o waag o an mede ndefa o waag o den so den kene xaroye ndañ abbé michel ga'a kene kene o ñoowo laam fo a yipaa jaɓi bo ko ɓirel jaɓi mayɗa nda itam ke ando naye te ndefu nene nda oxu garna mena wo xoɗom kaan xeex kaan ndax o waago ñoowna itam we ando ten rooga ɗox ndax da mbaago njeg o ñoow kene lalganoona mi andano to anda ke te refna yeesu krista ten jilu ke ando ten refu ngay naak fo o siir ndax wiin we mbaagu an ke refna mission um na adna fe wo o jopir teen ɓeer no ngay naak yaaga boog fogaame mokireyo no ñowof no ñowo labe yasam rooga damtoom o refo koy naako paax merci remercie la koy abbé michel ne reftona o kaynaak no sirnaak roog a xoyaan ndax o ref itam no mboɓ ne e koy o kiin ten moƴu ɗom e njegel dox njegel moƴu yooɓe o ɗoxo kiin ndaa ne laytanoona o ñoowole no siro le a moƴanangang o ñisoof xan roog a jaɓ ngaynaakof michel leyano anda ke refna coono fo naqad fo niɓaan no ñoow fat boog o ñohora kili niɓano lene na adna fe in ando naye kate toi même michel tu m'as fait une bonne herméneutique de la vache et tu me disais la vache c'est mon tout je la maîtrise et pour moi c'est l'animal de la charité alors tu poursuivais en disant La vache a quatre mamelles et généralement, elle donne qu'un seul veau à son terme. Donc, il me disait que la vache a quatre mamelles et généralement, elle donne un seul veau. L'une des mamelles, c'est pour nourrir le veau. La deuxième, c'est pour le berger. La troisième, pour le propriétaire du troupeau. Et la quatrième pour l'étranger. Moi, j'ajoute, dans ton ministère sacerdotal, dans ta vie de prêtre, sois comme une vache à quatre mamelles. L'une est destinée au veau, pour te rappeler toi aussi que tu es père ou mère et que tu engendreras des fils dans la foi à travers le sacrement de baptême. Tâche alors de les nourrir et de prendre soin de leurs âmes. Et une deuxième mamelle qui te rappellera ton devoir d'obéissance envers l'évêque, le pasteur du diocèse, auquel tu es lié pour accomplir en toute liberté la mission qu'il te confie. et une troisième mamelle qui te, qu te rappelle que tu appartiens désormais à une propriété, à une grande famille, l'Église. Aime cette Église comme le Christ l'a aimée et s'est livré pour elle, pour vivre la communion non seulement avec tes confrères prêtres, mais aussi avec tous les fidèles. et Michel, une quatrième mamelle. Qu'elle te rappelle la mission universelle du salut apportée par le Christ. L'étranger est aussi un frère à accueillir, à intégrer, à nourrir et à secourir. Si tu le fais, tu vivras ton sacerdoce dans l'amour du cœur de Jésus qui n'est que charité. Enfin, à vous, chers fidèles du Christ, vous qui êtes fiers aujourd'hui d'avoir un prêtre, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qu'un prêtre Qu'est-ce qu'un prêtre C'est difficile d'y répondre vu la grandeur de sa mission. Ou bien on risquerait de répondre sur une facette ou une moitié. Qu'est-ce qu'un prêtre Un mystère. Le prêtre, c'est un mystère dans son ministère. Alors, puisque le prêtre est un mystère, devant le mystère que l'on ne finira jamais d'épuiser, soyons prudents, nous mandou, des labés, Euh, mystère la maanaam kumpa la nañuy mandu ci ay le mystère on ne doit pas juger on ne doit pas condamner devant le mystère il faut toujours s'agenouiller et prier devant le mystère il faut être patient priez pour vos prêtres soyez patients envers vos prêtres car leur vie est un mystère. N'est-ce pas lui qui se lève tous les jours pour vous nourrir de la parole de Dieu et prier pour vous? Le prêtre n'est pas un super-homme. Il est homme comme toi, fragile comme toi. C'est toi qui l'as mis au monde. Mais c'est Dieu qui en a fait une œuvre merveilleuse pour refléter le Christ lui-même, Ipse Christus. Alors, chers croyants, l'heure n'est plus à la petite catéchèse ou à la foi du chardonnier, où l'on oublie que c'est Dieu qui choisit et que l'homme dans sa fragilité répond à Dieu. Sachons aussi que le sacerdoce n'a pas changé. La sainteté du prêtre n'a pas changé. C'est seulement l'époque qui a changé. Acceptez les prêtres de votre temps. Et malgré leurs faiblesses liées à la circonstance peut-être, vous pourrez reconnaître aussi leurs efforts, leurs sacrifices de leur temps. Priez pour vous. On ne parle pas maintenant de l'accessibilité des prêtres, mais on parle peut-être de certains mots. Et pourtant maintenant, le fidèle peut appeler à n'importe quelle le prêtre pour avoir des conseils, pour être soutenu, pour, prier. Est-ce que les prêtres des, des, temps anciens, vous pourriez avoir cette proximité-là avec eux Priez pour les prêtres de votre temps et pour le sacrifice de leur temps. Je m'adresse maintenant à vous, laa communauté de Ndianda yéen waa Ndianda laa a waxal foog naa ne xoyom xoyom yi amatul xam ngeen ne kontaan ngeen ni ngeen amee labe n'est-ce pas kontaanoo leen kontaan ngeen voilà waaye nag war na leen jàngal lan mooy toppatoo labé gis ngeen cérémonie bi nu mu méttee gis ngeen sax bi nu mu diisee loolu war a tax itam ngeen di toppatoo labe yi leen di yónnee abbé Théophile ñu ki mu ngi nii su ngeen ko toppatoowul yéen itam abbé Michel bi ko toppatoo jàll donc toppatoo leen ko fii comme ça ñu mën a toppatoo seen labe fu mu nekk c'est très important na ngeen toppatoo alors l'abbé Théophile bi nga xamante ne moom lañ fi teg Enfin, j'ai envie de dire bon grand et petit frère. Yassam labene malo, to omal labene. Yassam onogoyten, to yassam ndinnewo dohkan bo faw. Yassam ngetamen bo kili, no tot labe. Jokanjal a Yesu, o kayna ko paxuxe, ten feti nayin des o mag Amén. woni Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide-les par la grâce de cette Eucharistie à t'offrir le sacrifice que tu attends des hommes et à faire grandir ainsi le corps du Christ. lui qui règne pour les siècles des siècles. Ya samoyalo xeere fandeer in batake ina njofto marogo yal faɗi ngid marogo yal in fappate ɗuɗe ɗufane rogbomo soyal kattil a jofato a fa hobo telon ham togitmel man hu refna bomos ndigel i lalta o ndamof no winwa fop to jirñota xame ma in ngel nangon nda yoka in no mbarna no fangon fana tonen no ñoowin o laxel na yaqooxin ret ka taban no ñowola na mucala na ɓe yesu krista o yalin no ten malaka kam mbokatoxa mbambirof a mbaɗorta o ndamof na kim den wasine mbokata ñuxur in to ngiman to siwanda e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 de consacrer les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La même il fut livré, il prit le pain, en te Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dole et soa ya loha roga do ya ma do bahu. à ses disciples en disant Venez et buvez-en tous, car la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela Yesuhai kunla no yaluha roga doyama dopahu. Ole Yesuhai kunla no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 pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, son prédécesseur, le cardinal Sarr, l'ensemble des évêques, les prêtres, les et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Ousmane Diène Faye, Kumbassa, pour les âmes du purgatoire, particulièrement les plus délaissées, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Hallelujah. gannaaw lu ci suñu musalkat bi digal ak li ñu doomu yàlla ci mantal sañ nañu an ñaan ci baat yi lee suñu baat ñu ci lépp leel may ñu jaamañu ci suñu jaamaano ci lee nañu sa yërmande taxawu ngir ñu bañ a ci bàkkaar be abada te mën a rëcc kasaragu ne ñu ngi yaakaar te di xandikum Yeesu Krista suñu borom borom bi yeesu kirista yow mi ne woon sa apootar ya jàmmalaa leen bàttalee su ma jàmmalaa leen may bul seet suñu bàkkaar seetal sa ngëmu jàngu bi leel na la neex nga sàmm ko ci jàmm te taxatle ko ci déggoo yow mi di dund te di nguuru moos be moos na jàmm ji bawoo ci borom bi nekk ci yéen ñépp ci cofeelu Krista bi nañu yéenante jàmm dindi bakkaari àdduna bari nañu ñu muur ñu borom bi woo ci ñamam yu sell yi Seigneur, au don sacré de ton corps et de ton sang, et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. vont à l'endroit, merci de tout cœur vont à l'endroit de l'abbé Joseph Ning, grâce à qui la flamme de ma vocation sacerdotale s'est rallumée. Merci à tous ces prêtres qui se sont sentis concernés par mon cheminement vocationnel et qui s'y sont impliqués. Merci aux sœurs franciscaines missionnaires de Marie pour l'accompagnement et le soutien. Merci à mes formateurs de tous les séminaires. Merci à la sœur Marindaou pour l'accompagnement et le soutien dans la formation. Ma sœur, enfin vous avez un petit frère. Merci à la sœur Louise Ndiaye, supérieure des Carmélites de Sébikotan, pour l'accompagnement spirituel. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné spirituellement. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu matériellement et financièrement. Pour tous ceux qui se sont dépensés physiquement et par leurs conseils, je dis merci. grand merci à l'abbé Théophile qui a la grâce de donner à Nganda son premier prêtre. Mon père, merci pour tout l'effort de cette organisation. Et merci à l'abbé André qui l'a beaucoup épaulé et à l'abbé Alphonse qui qui a prêché. Je remercie tous les prêtres par je suis passé récemment À Guédiawaye, l'église Saint-Jean-Paul II, avec mon papa François Ousmane Je remercie Abbé Raphaël Marena, dans les bras de qui je suis atterri pour en premier lieu comme prêtre, et qui a eu beaucoup de patience et de compréhension à mon égard. Merci à tous les confrères prêtres venus de divers horizons. Merci à mes promotionnaires et aux grands séminaristes. Je pense aussi à Emmanuel Papa Lassansar, l'actuel grand séminariste d'Indianda qui est à Brun. Du courage les petits séminaristes qui sont en Gazoville, Hanafa. Merci à mes familles d'accueil de Ziguinchor à Dakar en passant par Joal. Merci pour tous ceux qui sont, pour tous ceux qui sont venus de Joal, de Fadjou, de Ndiaron, de Palmarin, de Ndofan, de Nguyen, de Mbogé, d'Ongoye, de Djouroup, Mbassis, Niahar, Ngazovine, de Dakar, principalement de Guédiawaye, de Mbour et partout ailleurs. Toute ma gratitude aux de Yanda vivant dans le pays et dans la diaspora. Merci aux jeunes catholiques et aux femmes catholiques et aux catéchistes la catéchèse. Merci au groupe WhatsApp Les Poulains de M. Sen et le groupe WhatsApp Yongaï. jar ceen su may mbokk bés bi lañ doon xaar bés bi itam la gënoon a tiit lu diis la lu métti la pour man lu may yëg suma yaram man rek maa ko xam wante damaa bëgg a gërëm waa Ndianda musulman comme chrétien buntu kër bu ma romb ñu may ñaanal fépp fu ma romb ñu ngi wax di ma encouragé Michel Coly existé wul Michel kan nit ña ko tabax waa Njànd gërëm naa leen dafa ngërëm mën a yenn def ngeen ci man lu mu ñal ngeen ma bunge ngeen ma jërë ngeen jëf ku ci ñàkk dooleem ku ci def ñaanam ku ci def xaalisam ak yéenam ku ma yedd ak lépp loo mënti def yàlla na ko yàlla fay wande suma histoire dafa xaw compliqué tuuti ndaxte man mii di wax ak yéen Ousmane Diène Faye mooy suma baay ay secondaire mii toog suma yaay Ousmane Diène Faye jur ma dugal ma alxuraan ma dem jàngi mu faf mayee ma ci benn dëkk yàlla na muy defee foofu laa njëkk a tase ak li ñu ak diine lislaam ma ñibbisi continuer suma dund ci diine lislaam waaye fekk tase naa ak Yeesu mu dugal ci suma xol diine chrétien mu nekk lu méttee lu lu jafee li jënti may xeex ak suma bàyyi ne ko bàyyi dama bëgg a doon chrétien muy bañ di bañ ba ñetti at ba ñeenteeli at bi comme ku baax la woon te yàlla mu ne ah comme yàgg nga di ma ko toppee xanaa yàlla la ko oowee waaye demal ma koy gërëm xam naa ne may naa ko gàcce ci ay moromam mu doon àndal ay jullit ndax yu métti la amoon na ci gàcce waaye yàlla ma ëppoon doole damaa ma sat sat nit mu ne ma yow lu tax nga tuur ma ne ko mënuma ko expliquer ma ne ko xoolal xale bu jigéen bii jékki-jékki nopp nopp keneen ci weneeni xeet waa waajuram ne du ci dal te moom kooku la nopp ñu ne ko may nañ la kii ci sa xeet te bëgg ko ndeesaan kooku su ko sañoon su mënoon téye xolam ci loxoom su dem dina bi keneen waaye fu mu juddoo ci xeetam lay am am jëkkër man ne ko gis nga kooku su demee mën na am sax njabootam xaajoog moom te loolu bari na ci société bi ma ne ko sëñ bi ngëm ci xol la yàllaa koy def ci xol mooy nobel rek mënoo ne kii laay nopp wala kii laay bëgg yàllaa koy def ci xol boobu nattu la ma yàlla teg mu metti lool wande nag yàlla moom ëpp doole te may na ma doole ba ma egsi fii tey bu ma jógee fii dem ci àll bi ñu ma dugg ci tolof tolof yu metti ñu ma njëkk a mooy benn murit moo tax ma invité sëñ Laat mu fi toogal sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides ci diwaanu Joal murit boobu moo ma doon jox ma lekk di ma dimbali ba ma gën ci tolof tolof yooyu ëpp na tey ñaar fukki at ak juróom-benn mënatuma koo gis pour mu ñëw toog fii ak ñun moo waral ma ne comme jëfu murit la def ndaxte dafa murit dafa tabete yéwén murit dafa yaatu loolu ku ko weddi moom ah, xanaa nga dem Tuubaa ma ne comme sëñ laat mu ngi dox ci dialogue islamo-chrétien lu am solo dama lay invité sëñ bi mosuma gis sa jëmm nag waaye daal soo fi nekkee dalal ci jàmm di gërëm murid yi ñépp bu ma jógee foofu amoon naa njaqare bi rëy ndaxte suma njàng naroon na arrêté ci quatrième aw ma woon fu ma dal toroxtaange dikk ma taseeg tijaan yi La famille si de Diamaguène mère Fatoumata Sy kooku mënuma koo gërëm mu jël ma fat ma këram def ma comme doomam ba ma bëgg a jël sax palaasu doomam ma nekk ak ñoom ba suma njàng Joal pare ma dem université mu nekk lu rafet yalla jaarloo ma foofu ci ñaari tariixa yooyu ndax ma xam ne du chrétiens yi ñoo gën musulman yi du musulman yi ñoo gën chrétiens yi wala waaye yàllaa yore lépp ci loxoom di gërëm tijaan yi itam ñëpp gërëm yooyu yëpp maa ngi gërëm suma papa ko fi tey waaye yéen waa Njànd seede ngeen kan mooy Ousmane Diène Faye nit ku baax ku baaxee noonu jafe na ci àdduna wallahi du ma jur mais ku ja jafe na ci àdduna nga tase ku baaxee noonu ànd ak ñëpp doon mbokk ñëpp luy lu baax mu jiitu na ci ma koy gërëm bu baax bu ma nekkee tuubee ñëw chrétien dañ ma naan suñu yàlla bàyyi la ma ne loolu jomalu ma te bettu ma ndax suma ma bàyyi lu ma yore ak lu mu ma yaree ak lu mu def ci man suñ ma ne yàlla bàyyi la bon gëm naa ne yàlla bu baax la ndaxte topp toppatoo na ma jàngal na ma liggéey jàngal na ma lépp ak mbaax ak muñ daf ma doon naan Michel Coly yenn saa daf ma naan Fatou góor bu jooy waane nag lu mu xam jooy naa lu bari ci suma àdduna ndax diggante ñi ma dàqee séminaire u Ngazobil ak bu may dellusiwaat ci grand séminaire ah dund naa lu mot presque ñaar fukki at fukki at ak juróom-ñeent ci wéetaay ci ay tolof tolof ci coono mu metti woon trop waaye dafa dem ba lu ma lu ma sama papa waxoon man lu ma ko woon mën dama doon jooy ba jékki-jékki bés nag Michel doo duma jooy xaaral nag ma doon doo dëgg yàlla fu mu fu mu jaar ak man gis naa ne sopp na ma torop sopp na ma torop ndaxte yàlla ku mu sopp def ko woon boppam def koy yar def koy nattu loolu dund naa ko papa yàlla na la yàlla dugal ci àjjana yu gën a kawe su ma yaay ay satu ndeel maa ngi lay gërëm yaay di sukk sa kanam di la gërëm bu baax a baax jigéen bu yàlla nattu ci yow laa jàngee lan mooy yaay demoon nañ ba yéemu ci àdduna ci métit yi dal suñu njaboot feebar yi dul jeex ay tolof tolof yi kenn xamut nu ñu yem yaay ngay muñ di jóg di daanu demoon nañ ba man nii di wax su ma waxee rekk yàlla tax demoon naa ba weddi ba ne damay dund te yàlla bokkatu ci ba dugg ci loolu ndaxte métti woon na torop bu mu demee ba ma natt ma damaa ne yàlla te ngaa fexe dugal ma kaso ndax ma mën a noppaleeku ndaxte métti woon na trop yaay booy maa ngi fàttaliku diggante ci loor ak Malick jooy yi ay ati ak ay at dul jeex bu ñuy naan xam ne yàlla def ñoo fàtte yi demoon nañ sax ba weddi yàlla ndax métti yaay lii yàlla daf ñoo sopp moo tax mu def ko daf ñu doon yar daf ma doon yar maa ngi gërëm yàlla bu baax a baax ndaxte ni ko waxee ci kàllaama nasaraan yàlla xuusloo na ma ci lëndëm yu gën a lëndëm ci li gën a lëndëm waande nag yàlla itam won na ma li ma li nga xamante ne su wanee nit lu ko ëpp defe naa di nga ko gis jaxaran bon sant naa yàlla sant naa yàlla bu baax a baax yaabooy lii yàllaa ko dogal kenn bëgg ko woon ci kër gi mais dem na ci ñun waaye maa ngi gërëm yàlla di gërëm suma papa di la gërëm ci yéen jàngee naa doon bàyyi ak doon yaay yal na leen yàlla fay jërë ngeen jëf alors ñii laa àndaloon bu may def formation ñi la waa archidiocèse de Dakar euh, fal ren ñu doonoon su may nawle ci formation bi euh, di leen gërëm ci seen teewaay ah ñoom mën nañ présenté wu ku nekk mën nga wax sa devise ak foo soxee ko euh, Sylvie. Je m'appelle l'abbé François André Paye. originaire de la paroisse Saint-Paul de Vaillon, en service actuellement à la paroisse L'Enfant Jésus de Prat de Tuaoul Peul. Ma devise la voici. Seigneur, à qui unions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Je m'appelle l'abbé Jean-Marie Préra. Je suis originaire de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar, en service à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Ma débit, je l'ai tiré de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. li ma bàyyi bëggee noonu tamit laa leen bëggee sax leen ci mbëggeel boobu je Abbé Jean-Ahmed Diakhaté. Voilà. Je suis originaire de la paroisse Immaculée Conception de Palmarin. Et je suis en service à Saint-Louis l'Africain de Mboté. Ma devise est la suivante, tirée Gloire à Dieu et paix la terre aux hommes qui l'aiment. d'enfant, originaire de la paroisse Saint-Paul de Nayof, en service à Notre-Dame de la Purification de Joël. Je le dis d'une prière au Dieu de tendresse, elle s'annonce ainsi. Avec les mots humains qui seuls ont goût de Dieu, donne-moi de faire connaître ton vrai nom. maa Joseph Sadio Diédhiou bàyyee ko ci paroisse Saint-François d'Assise Kër Massar maa ngi surgawu ci paroisse Saint Jean Baptiste bu Ñaaxaar sama devise sacerdotale maa ngi ko jëlee ci lettre romain chapitre 12 verset 11 et qui servez le Seigneur activement sans paresse et de tout votre cœur Bonjour tout le monde. Je suis très content de revenir à l'Éden. Je suis Napoléon Gomis. J'ai effectué mon stage pastoral ici même dans cette quasi-paroisse. Je suis originaire de la paroisse Marie Immaculée des Parcelles assainies. Et je suis actuellement en service à la paroisse Sainte-Anne de Diakharaossi. Ma devise, je l'ai tirée de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains, en son chapitre 5, le verset 5, qui s'intitule ainsi L'espérance ne déçoit pas. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix